الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المؤمنون إن الله عز وجل هو ربنا وموجدنا ورازقنا ومدبر أمورنا وشؤوننا تعرف إلينا جل جلاله بكثرة نعمه وفيض كرمه وواسع رحمته وكامل قدرته وعظيم خلقه قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر وقال جل شأنه ذلكم الله ربكم بس ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi borom mbindee fi di seede ni amul benn buur bu yeeyoo jaam bu dul moom subhaanahu wa taala moom mi buur bi dëgg di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam di suñu yonent jaamu yàlla yàlla la di ndawam li mu wóolu di ñaan yàlla mu dotti ci moom xéewal ak mucc ak barke waaye def ko ci njabootam gu laab ga ak àndandoom yu baax ya ak képp ku jaar ci seen tànk ba keroog si pénc yàlla nañ ci yàlla boole ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñuy dénk si mbokk di leen dénk ragal yàlla subhaanahu wa taala borom bi subhaanahu wa taala mi ngi àddu di wax ak ñun ci alquraanul karim ñu eey yéen nit ñi jaamu leen seen borom mi nga xam ni moo leen sàkk moo leen sàkk sàkk ñi leen jiit woon ndax loolu jural leen ak ragal yàlla woote bi yàlla njëkk woote ci alquranul karim boo tàmbalee fatihatul baqara mooy woote bii ay yéen nit ñi mu jub mu mu ñu jubale ko ñu tëj jinne yépp ñu leen jaamu leen seen borom mi nga xam ne moo leen sàkk sàkk ñi leen jiitu woon ndax mu jural leen ak ragal yàlla mbokk jullit yi woote bu rëy boobu yàlla njëkk woote ci alquran ci lañ bëgg a te jubale suñu waxtaanu tey suñu xutba tey te mooy jaamu leen seen borom boobu yàlla wax dafa am loo xam ni dañ ko war di nafar warul di jug suñu xel xam nga ni borom bi subhanahu wa taala xam nañu xamal nañu moom xamal nañu ci jaarale ko ci alquranam ji ak njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yu ñu xam mu xamle ko yonente bi xamle ko waaye tur yooyu li muy bari bari bari bu ci nekk jullit bi daa war di ko nafar ndax tur yi wu nekk tur yi dafa am lu muy wundu dafa am aw melokaan dafa am mbubu mu muy sabal borom bi subhanahu wa taala ci turam yooyu ak melokaan yooyu ci nga koy xame moom yàlla te loo xam nangul ko dayoom waaye loo réere doo ko nangul dayoom doo ko jox dayoom nit mënta jox dayo mukk lu mu réere lu nekk rek kem te laay ni nga ko xamee nga ko joxe dayoom moo tax borom bi suñuy wax ay turam ak melokaan lu mat juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent dañoo bëgg ñu xam ko xam dayoom te tur wu ci nekk ak ak melokaan la tur wu ci nekk da koy day jàngale borom bi subhanahu wa taala moo tax tey ñu bëggoon a nafar ak yéen tur wi rab baatu rab yaa ayyuha naasu ubudu rabbakum newul yaa ayyuha naasu ubudu allah allah mooy turu jëmmam ja newul ubudu rahman newul ubudu rahim newul ubudu rauf alxafuur alshakuur tur yi bari na mais rabbakum la baatu rabb la indi te baat boobu li ko suñu borom di jëfandikoo ci alquran ngir xamal ñu boppam li gën a bari bu ñu bëggee xamal boppam ci rabbu jooju lay la baatu rab boobu lay jëfandikoo moo tax rab dañ ko war di nafar moo tax tey ñu bëggoon a nafar ak yéen baatu rabb boobu suñ borom mu ni jaamu leen seen borom mi nga xam ni moo leen sàkk sàkk ñu leen jiitu woon ndax loolu jureen la di yàlla kon baatu rabb bu ñu ko jàngee boo commencé saa yu njëkk ci alquran muy sootu fatiha ginnaaw bu ñu ko ubbee bismillahi rahmaani rahim lam njëkk wax mooy alhamdulillah xeeti cant yëpp ñen la yàlla subhanahu wa taala allah moom mooy turu jëmmam ji bu doon bu doon am carte d'identité dañ naan allah moo cay nekk comme turam qul huwa allahu ahad waaye mu ni xeeti cant yëpp ñeel na yàlla lu mu ca teg rabbil alamin baatu rabb la ñu indil fii mooy borom mbindeef yëpp baatu rabb dafa am lu ñuy tekki ci ci arab rabb day tekki alxaaliq ki bind waaw borom day tekki ki bind mu ko abudu rabbakum alladi xalaqakum moo leen bind baatu rabb day tekki almalik ki moom ku ku kuy borom lii ne diw mooy borom lii mooy moo ko moom kon baatu rabb day tekki ginnaaw bu tekkee ki moom day tekki it kiy def ci li ko lim moom lu ko soob kiy jëfandikoo lim moom lu ko soob ak lu mu ko soobee baatu rabb day tekki loolu al mutasarrifu fi ma yamliku ma yasha kii def ci lim moom li ko neex baatu rabb day firi al munim kii wërsëgal ki yor ñëpp ci ay xéewalam lépp lu dund ci àdduna moo xam ci jéer ji moo xam ci jaww ji moo xam ci géej ji lu ci nekk yàlla nee na wërsëgam ci mën yàlla jóge wa ma min daabatin fi l ardi illa ala allahi risquha amul lenn luy dukkat wala luy wàññi ci kaw suuf wala fu mu mën a nekk biir géej gi wala jéeri ji ci jaww ji lu ci nekk di dund suñu borom ne na wërsëgam man yàlla maa ko warloo maa ko koy yor kon baatara bu day tekki kiy wërsëgal kiy yor mbindeef yi ci ay xéewalam moo tax baatu rabbu boo ko jàngee ba xam li muy tekki dimension bi mu am ci ngay mën a jox yàlla dayoom dëgg-dëgg kon moom yàlla moomee bu leen jaamu leen ma li tax mu ne jaamu leen ma parce que mooy rabb mooy ki leen sàkk suñ borom lancé na ay défi ci alxuraan ba tàyyi ci ni maa bind nit maa bind nit loolu ba jamono jii alxuraan wàcc ba nëgëni di quatorze siècle ak lu topp amul benn science wala xam-xam bu mën a teggi dara ci loolu yàlla wax xalaqakum min nafsin waxida yàlla mun maa leen sàkk ci benn bakkan muy aadama summa jaala minha zawjaha ma sàkke ci aadama soxnaam muy xawa wa anzala lakum min al an'ami thamaniyata azwaj ma wàccel leen ci ay xeeti jur juróom-ñetti peere jur juróom-ñetti peer di juri kër xar nga am ci góor ak jigéen nag nga am ci góor ak jigéen béy nga am ci góor ak jigéen giléem nga am ci góor ak jigéen loolu mooy juri kër yi al an'am ma aw laaj wàcc wàcce nañ ci ay peer li yaxluqukum fi butuni ummahatikum moom yàlla moo may moo leen di sàkk moo leen di créer moo leen di bind ci seen biiru yaay yi xalqan min baadi xalqin mbind ci kaw mbind étape ci kaw étape nekk toq maniyu nekk lumbu deret nekk aw suux nekk ay yax mu sàngar yax yi aw yàpp ak sidit ba mbind ma mat doomu aadama door a gën a àdduna diggante boobu si mborom mu ni benn loxo jotul fa buru sama loxo kon bu nee jaamu leen ma day indi yi war ay sabab yi tax yi war a tax ñu war ko jaam bu nee wéetal leen ma man yàlla aw ma moroom ci mbindeef yi dañuy wax ni tax amul morom ci mbindeef yi te baatu rabb dañuy firi loolu lépp mu ne maa leen di bind ci bind ci kaw bind étape par étape fii zulumaatin salaasin ci ñetti lëndëm ci ñetti lëndëm lëndëmul biir biiru yaay ji lëndëmu butit njurikaay yi lëndëmu ànd bi ëmb doom ji muy ñetti lëndëm fii zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm mu ne daalikumullahu rabbukum kooku mooy seen borom kooku mooy seen rab parce que yii mu wax mun déef mun déef amu ci waxtu mun déef jotiwu ca ba ci ba ci def dara kon kooku mooy seen borom da ngeen ko jaamu te bañ ko bokkaale dara booy xool ci li la wër borom bi ni muy binde ak ni muy orienté li mu bind ci service bi muy xaar ci moom lépp lu suñu borom bind rek dafa am service bu mu ko sant tàmbale ci doomu aadama ci jëmmam ji ak li ko wër ci ay mala li ko wër ci ay garab li ko wër ci ay montagne asamaan si suuf si lu ci nekk bi ko suñu borom sàkke dafa am mission bu mu ko sa bu mu ko chargé mission boobu yàlla suñu borom nee na maa koy gidd maa koy gidee maa koy gindi ci mission boobu du ko mën a mooy mbokk yi da nga yor sa jur ci kër gi xar mi xëy am doom nga xool borom bi ni muy gidee doomi xar moomu judd ci dundam ji mu war a dund ci kaw suuf bu juddoo lan moo koy wax ni dafa war a nàmp fu weenu yaay ji nekk dina ko wëri te bu demee kenn du ko ni yaay yaay ji xar mi yaay ji ñaata cër la am mais ak wen yi ni mu ruqee ca wen wa lay jubal kooku mooy hidaayatullah mooy orientation si borom ci lim bind waaw moo tax yonent yàlla Moussa alayhi salaam bi ko yàlla yónnee ci firawna ak firawna na mu tolloon ci àdduna si jamono yooyu ci nguur ak pouvoir ak sañ-sañ ak doole ak Moussa ni néew woon doole nga xam ni waroon ko rey taxam mu daw yàlla yónni waat ko ci di néew dëkkee pour ñu rey ba mu ñëwee firawna day woote ne man maay seen yàlla ana rabbukumul aala la waxoon maay seen yàlla maay seen rabb gis nga rabb li muy teg ne ana ilaahukum de waaye ana rabbukum la lu ngeen am tey rek man la ba Moussa alayhi salaam ñëwee ci Firawna Firawna la ko ni kan mooy seen borom yéen ñaar yaa yaa ngi xaaru kuy seen borom wa man rabbukuma yaa Moussa kuy seen borom yow Moussa nga ni te Firawna keneen na fi yàlla ku dul yow moom mooy sa sa dund jeex na waaye yonent ci yàlla Moussa alayhi salaam xool li mu tontu yonent ci yàlla li mu li mu tontu Firawna qaala rabbuna alladi aata kulla cheyin xalqahu summa hada suñ borom mooy ki nga xam ni moo jox lépp lu existé mbindam moo ko créé création moom la waaye yamuta summa hada mu orienté loola ca la ca service bi tax mu sàkku kooku Firawna day wedam ndax xam na bu jàppee ne bu taxawee ci kanamu jaam ñu ne lu ngeen am mën a tey lu ngeen am mën a tey Moussa wan na ko ni doo dara ci liñ am ndax sàkkoo ñu te itam suñ dund li ñu fay jëmale du yow kon nan nga koy jàngate ci li wër nan nga koy jàngate ci asamaan yi ci suuf si xoola ndox mi ci asamaan ku ko fa téye lu ko fay garde lu ko fay liggéey ba waxtu yi wàccam di jot heure bi rek bu tawoon tey maanaam lu bari lañu yàqal suñ dund mu téye taw ñu wutu ko benn période boo xam ne ci lañ koy soxlaa ñun bu jotee mu wàcce ko ni mu ko ni mu méngoo ak ñun ni mu méngoo ak ñun la koy wàcce mën na ko ni yuree benn yoon mu nekk loraange ci ñun mais wàcce ko ci ni mu méngoo ak ñun ak ni mu ko mën a dëkkoo waaye suuf si mu commencé xar suuf si muy meññ la nga ca ji waaye di saxal loo ca jiwul ndax lay sax di jóge ci suuf mataaxan lakum xéewal na ngir yéen waaye wala ana aami ak seen jur gi kon li jur gi soxla yàlla bàyyiwu ko ci ñun ndax bu ko bàyyoon ci ñun jur gi mën na ñoo loru de ndax tey da ngay gis baykat bi day bay ba noppi ngoon li jur gi moom bu jël ko jaayaat def koo tax fajay aajo moo tax suñu borom di saxal jur gi la neen lu dul ngoon moomee muy ñax moo xam ne doomu aadama du ko saxal kon mu ne li may saxal ci kaw suuf mataahan lakum da xéewal la ñeel leen waaye wal anhaamikum ak seen ak seen jur yi waaye boo xoolee ni muy bind di orienté li mu bind nga xool ko ci yow doomu aadama nit ki dugg juddoo gane àdduna di liir ba mu nekkee juróom-ñeenti weer ci biiru waajuram biiru ndeyam la mu soxla ci lekk ma ngi koy am la mu soxla ci naan ma ngi koy am la muy soxla ci oxygène mu ngi koy am fii zulumaatin salaat ci ñetti lëndëm yooyu bu ganee àdduna dafa soxla di continuer di lekk di naan yaay ji mën naa toog ñaari at ñetti at yoo xam ne weeru lii du bënn mais bu nit ki judd rek yàlla bënn weeru yaay ji mu muy génne dund goo xam ni moom la mooy bi convenable bi dëpp ci juddu tey mu aw lan lu mën a dund bu neewu ndeyam joojee kese mu koy servir lekk ak naan moo tax ba muy tuddoo rek hada si borom da koy gindi da koy orienté ci ci fa dundam nekk kenn du ko ni weer ni fii la buñ ko saxalee weer ni kenn du ko ni muucul ndax mbindum yàlla ak xéewal bi mu xéewal ak taxaw bi mu taxaw doomu aadama noonu noonu noonu ba xi doomu aadama di xëy nekk ci mu nekk kon sa cër yi nga yor noonu ni ko yàlla bindee orienté cër wu nekk ci mission bi mu am ci yow sa loxo yi sa baaraam yi bu ci nekk lim lay servir suñ borom orienté ko ci loo xam ni li loxo di lu doomu aadama soxla ci loxo beneen cër mënu ko koo jox li mu soxla pour dégg beneen cër mënu ko jox bu dul loxo li mu soxla pour xool xàmmee di gis ak li mu soxla ci gis ak li ko gis di jariñ ci dundam dara mënu ko jox lu bët ak composant yi composé cër yooyu ba mën di dégg bu dee nopp mën di gis bu dee bët bu dee tànk cër yëpp boo ko jëlee noonu lu ci nekk su ma doon ko bind waaye orienté ko ci service bu muy xaar pour doomu aadama fi ne kilif teef gee yàlla def nit yilif ko say cër dong mënoo ko mënoo ko fa yàlla kilif teef gi mu la def nit yilif ko say cër fi ne boo bëggoon a jël dara ci sa loxo yi loxo yi du xaar nga jox ko ndigal pour mu dem jël yàlla da ko da ko communiqué da ko da ko da ko jokkale direct ak sa bëgg-bëgg nga xam ne jëm mu bëgg ko rek day dem defal la ko doo ko ne loxo jot ni ma lële déedéet jëm mu bëgg bi ko suñu borom di connecté ak sa bëgg-bëgg jëmm li ngay bëgg a xool jëmm li ngay bëgg a wax cër yi duñu xaar nga jox leen digal pour wax wala pour jox jox la service bi nga soxla si ñoom loolu di xew nga xam ay milliards mayu ndax léeg-léegi yàlla xañ ko sa morom ngir walla ni mbir mi di yaa ko mën ne man maa ma yaa maa koy joxe nga gis koo xam ne bët yi nga am la am matière yi ci sa bët yëpp mu ngi ci moom waaye du gis kon jëmmi gis gi suñu borom moo koy joxe moo jox ndigal moo jox ndigal bët yi muy gis jëmm dégg ci noonu koo xam ni nopp yi nga am la am li sa nopp li am nopp yi sa nopp yi am lépp ay noppam am na ko waaye du dégg kon jëmm dégg yi xéewal suñu borom la kon baatu lab bi li ko suñu borom di jëfandikoo ci alquran ngir di ñu xamal borom di ñu xamal boppam ngir ñu man ñun ñu mën a féete fiñ féete te kat mënoo xam sa bopp mukk te xam te xamoo yàlla nit mën te xam boppam te xamul yàlla waaye ku xam yàlla rek xam sa bopp wala takunu kalladina nasu llaha fa ansaahum fa anfusahum su borom mu ne bu leen mel ni ñi fàtte yàlla yàlla fàtte loo leen seen bopp ku réere yàlla réer sa bopp mais ku xam yàlla rek xam sa bopp ndax ci xam sa bopp ci ngay xamee yàlla ci xam sa bopp ci ngay xamee yàlla yii ma wax nii ku ko nafaraat ci sa bopp xool ni hasard joxu la ko hasard c'est la nature kon ku judd rek moo waral déedéet yëpp judd na amul yi ma lay wax kon du du du du du nature moo koy joxe du hasard moo koy joxe yàlla mu ne man yàlla may kere may sàkk may joxe kon foofu la suñu borom féete nag moo tax mu ni tax bu duubu li ngeen ko jàmm ndax kat doomu aadama mbokk yi wax naa ko sànq lu nekk dayo bi mu am xam dayo lu nekk ci nga koy joxe gëddaam bir mu nekk kent laay li ngay xamee dayo ba noonu koy joxe gëddaam gone gi nga yor ci kër gi mu am ñaari at nga tàmmale ko nga tàmmal ko may ñaar fukk pour mu dee jënd sit boo xëyoon tàllal ko ñaar fukk ak dix mille francs ñaar fukk yi lay jël ndax ñaar fukk yi lay xam dayam xamul dayam dix mille francs kon lu lu nekk tamtalaay li ngay xamee dayo ba nan nga koy joxe gëdd nga tax ñun day laaj ñu defaraat suñu borom bu baax a baax pour xam dayam suñu tool te ki la ëmbal sa sànqal war na mën a ëmbal sa kersa kersa gi ñu war a am ci borom bi nag mooy lu mu sant ñu def ko lu mu tere ñu bàyyi ko loolu lay xaar ci moo tax mu ne yéen samay jaam ngeen dama leen defal lii yëpp ngir ngir may jaam kon mbokk yi xam yàlla mënul am te xamul suñu bopp yàlla ñu yàlla xamal boromam ak boppam ngir ñu xam suñu bopp aqul ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu nafaree yàlla subhanahu wa taala mu déglu ko mu xamal ñu boppam ñu war caa jaar ñun xam suñu bopp mooy ginnaaw bu ñu xamee ne moom mooy borom bi mooy ki sàkk kon daf ñuy delloo ci ni ni mu ëmb suñu sànqal noonu lañ war a ëmb noonu la war a ëmb suñu kersa kersa gi mooy lan ñu nangul ko mbokk yi même ci suñu biir ba en tant que ay doomi aadama nit ku nekk taxawaay bi muy am ci yow na nga koy jàpp foofu it noonu lay toll koo xam ni fu sa bët xonqe ñu fajal la sa aajo foo jàkk dem ci moom wutal la solution problème boo am mu taxawu la kooku kersa gi ngay am ci moom ci lu mu la sant nga man ko boo dee nit wala nga am tuuti ngor bu la sant loo man mukk te doo ko def même bu la santoon loo mënul sax di nga jéem ba mën ko ni bëgg naa ko ay mën moom nit laa wax am na fi lu muy séq yow ci teraanga kon mbokk yi liñ fi lim léegi teraanga suñu borom séq ñun te nag sant ñu luñ mënul wa maa jaala aleykum fi diini min xaraj suñu borom ni diine ji dafa lu ma leen ci genn jafe-jafe lu ma leen sant rek lu ngeen man la laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha suñu borom mu ni santuma teguma benn bakkan lu mënul waaw ñu bari nag dañ ci wéer wéer ah yàlla tegul kenn lu mënul kon loolu li muy tekki mooy lu la yàlla teg mën nga ko kon teguñu lu mënul lu ñu teg mën nañ ko kon ki am ki la ki ki ki ki ki la féete fii ci ay xéewal lu mu la sant rek war nga am kersa yi bañ koo def ko gànt moom bu fekkoon njariñ li ci moom la jëm rawatina nag yi mu la sant njariñ li ci yow la jëm njëriñ ci yow la jub lu mu la tere war nga am kersa yi di ko def même bu fekkoon boo ko defee moom lay gaañ moom dara du ko gaañ lu mu la tere rek yow lay gaañ kon loolu luy war a tax muy santaane te doo def luy war a tax muy tere te doo bàyyi bu fekkente ni xam nga sa bopp kon loolu fi mu lay féete ci ay xéewal waaye fi mu lay féete maanaam fi mu lay féete ci kattan sëpp ak doole yi am yi am suñu kaw ak sañ-sañ yi am suñu kaw loolu war naa tax ñu tiit ragal ko ba lu ñu sant ñu bañ ko ñu bañ ñu def ko lu ñu tere bañ ko bàyyi ndax sañ-sañ ak kattan bi am ci ñun sañ-sañ ak kattan bi am ci ñun ba noppi tëkku ñu tëkku ci ni lu ma leen tere suñu bàyyiwul maag yéen te am kattan gi mu am gi mu am gi mu am ak jekku gi mu jekku ak sañ-sañ gi mu am ci ñun bu ngeen di joxee misaal rek tey boo doon dawal sa oto wala nga dox ci mbedd mi te tey nit ngeen am ak juyoo ciy kàddu te commencé bi mu wax nga wax safaan lu mu wax nga wax safaan am ku ñëw delloo ne xanaa xamoo fii ci mooy procureur procureur diw procureur diw ci saasi ci saasi di nga am beneen taxawaay bu rek mooy amoon ah. dina am beneen taxaw bu dee ñuy amul li nga ko xamagul lu mu wax nga wax safaan waaye dina ne kii mooy nangam jox ko grade boo xam ne xam nga ne kii am na ab sañ-sañ ci kaw am na kattan ci sa kaw am na sañ-sañ ci sa kaw ci saa si rek da ngay daal di wàcc sa bopp da ngay saa di rëccu ndax lan yaa ngi ragal mu jëfandikoo sañ-sañam ci sa kaw wala kattanam ci sa kaw sañ-sañu mbokk sañ-sañu borom bi mbokk yi moo gën a rëy sañ-sañ yoon kon bu leen attention di leen def nangam tey mooy fi nangam ku am xel te bëgg sa bopp war ngay mën a góorgóorlu ci mu santaane sori li mu tere moo tax baatu rab bu boobu mbokk yi fi ñuy jeexale mooy moom mooy caabi li gën a gaaw ci ubbi li ngay soxla ci moom ci ñaan mu nangul la ko boo xoolee yonent yi alayhi salaatu wasalaam suñ borom nett li seeni jaar-jaar ba ñuy toll ci ay jafe-jafe soxla soutien soxla ndimbal ba ñuy topp ñii di toll ci soxla soxla ku leen saafara seen soxla ñii di soxla ci ay projet yu rëy rëy suñ maam Ibrahima alayhi salaam ku dem màkk xam ni borom ambition borom vision moo doon ñaan ñaan nga ñii soxla njaboot yonent yàlla Zakaria is naada rabbahu moom ñëpp ku ci nekk alxuraan bu lay wax baatu rabb lay jëfandikoo buy ñaan rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul waarisiin Zakaria alayhi salaam yàlla ba ma bàyyi man dong mooy tund bañ a am njaboot te yow yaay yaay donnale képp kuy am ndono yaa ko jox ndono rabb la jëfandikoo yonent yàlla Moussa ba mu ba mu dawee Égypte dem Madiana dégg nga fu mu xamul kenn tumburanke xiif sonn soxla aajowoo ndimbal ñaanul kenn borom la laaj rabbi lima anzalta ilayya min xayrin faqiir suñ borom yow suñ borom rabbi waaw loo ma sa dencal ci yiw def na soxla naa ko waaw gis nga ñoom ñëpp baatu rabb la ñuy jëfandikoo yoon ci yàlla Ibrahima alayhi salaam màkk gu rëy jee rabbi rabbi jaxal haada al balada aminan yàlla yàlla nga dëkk bii muy dëkk bu am sécurité warzuq ahlahu min samaraat yàlla nga wërsëgal ñoom dëkk bi waa dëkk bi ci xeeti meññeent yooyu yëpp yàlla nangul ko waaw rabbi jaalni muqiima solaati wa min zuriyati yàlla yàlla nga ma def may ma may may kuy taxawal julli maag sama njaboot rabbana wa taqabbalu ah yàlla yàlla nga nangu ñaan googu nit ki da nga war di ñaanal sa bopp di ñaanal sa njaboot waaw loolu ñaanoon ci mag yàlla yàlla nga ma def muy tax may kuy taxawal julli taxawal julli parce que mooy relation bi nekk sa diggante sa borom doomu aadama kon li muy soxla pour àdduna am jafe àllaaxira am jafe am connexion diggante sa borom jox moo koy may te benn connexion la suñu borom jox muy julli moo tax farata yëpp koor fukki weer ak benn benn weer moo ciy farata ak benn yoon si dund mooy farata dégg nga azaka benn yoon ci at mi fekkee sa alal mat na ko waaye julli moom amul kuñ koy tegg feebar ñàkk am yëpp juróomi yoon par bis mooy farata parce que loolu mënoo koo ñàkk connexion pour sa àdduna jàkk àllaaxira rek mënoo koo ñàkk kon dañuy dañuy góorgóorlu ci bañ a dagg suñu connexion ak suñu borom ngir suñuy ligne di jàll ngir suñuy appel di jàll suñuy suñuy woote di jàll soo ko defee rek loo woote yàlla wuyu la yàlla moo moom magasini asamaan suuf te joxe du ko jeexal yàlla lim yor joxe du ko jeexal kon bu jëmbale sa bopp mukk li nga bëgg te mënoo ko am te yàlla mën mën la ko may yàlla tëlewul dara kon nañuy jokk suñu diggante si borom ci góorgóorlu ci ñuy sant ci di ko def nit ñi ser kém te laay kàttan ñu di ko bàyyi ngir lan ngir mu mu mu mu suñu connexion di jàll ak moom lu mu lu ñu ko ñaan mu mu mu nangul ñu ko yàlla mën na loolu kon ñaan gi nekkul foog nga doon mag mag rek door a mën a am lijaaba jooju foog nga doon benn fan wu roomi lijaaba jooju ñun ñëpp jaami suñu borom lañ suñu borom lan doon ci kenn la doon ci ñëpp kon bu ko kenn jombale sa borom suñu ndaw ñi adduna dafa nekk suñ seen kanam góorgóorlu seen relation seen borom ñu tax bu baax a baax a baax ngir seen adduna jàpp seen àllaaxira jàpp ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.